asalaamaaleykum daleen ak jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jilee li leen gën a soxal mooy waxtaane ñu coppite yi ñu fas yéene indi ci région bu dakaar rawatina nag tëggate yi nga xam ne moom lañ ci fas yéene indiwaat dañu koy door ak Sud Quotidien muy waxtaane mbir mi ne nag dañ ko nar amal ci ni mu gën a gaawee maanaam ci mode fast track Macky sàll ci boppam moo nar a soppi xar kanamu région bu Ndakaaru ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication di ñu xamal ne président Macky Sall da caa lool li tax ñu wax loolu lee te yim fas yéene amalaat ci yenn ay circonscription yi nga xam ne ñoo ne ci ndakaaru kilifa yi ngonk wàllu administration ak politique ci gox-goxaat yi nga xam ne mbir mi soxal na leen daal jot nañu ab këyit goo xam ne daal da leen yëgal mbir mi conseillers municipaux yi nga xam ne ñoo faree foofu it dañ leen woolu tey ji jile ci àjjuma juróom-ñaari fan ci weeru mais ngir ñu joxe seen xalaat ci mbir moomu moomule ñu sukkandiku nag ci code général bu collectivité territoriale suñu naataango yi fare ci avenue Bourguiba di ñu xamal ne département bu Rufisque nag dana am beneen xar kanam jëmale ci wàllu administration ak it ci wàllu suuf ay arrondissement yu yees danañu ko amal commune Diamniadio Yène Sangalkam bambiloor Tivaouane Peulh Niaga ak Jaxaay Ñakku Rab dana am ay coppite yuñ ci nar a nemmeeku looloo tax ñenn ci kujje yi nag ñoom xam le nañu ne ànduñ ci benn yoon ku ci mel ne maire socialiste bii di Barthélémy Diaz nee na dañoo ñëw agressé dal bu baax a baax ci région bu Ndakaaru Barthélémy Diaz di xam le ne danañ jàpp ci wàllu taarix ne agressé bi ñu agressé Dakar am na yenn ci ñu bokk ci kujje gi ñoo xam ne ñoo ci jàppale nguur gi muy xam le ne ci bés suñu jëm nag danañu jël seen responsabilité ak lu mën a am daal mbir yi du yomb dara bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien Tribune moom ne Macky si boppam dafa ñëw daggate bu baax a baax ndakaaru ci diggante Bambilor Jaxaay ak Sangalkam Sangalkam ak Jaxaay nara nekk ay arrondissement Jaxaay nara bokk yi ci département bu Kër Massar Bambilor ñàkk juróomi village yoo xam ne dañu leen nar boole ci Sangalkam dëkk yooyu lee dikkunun ngelab kër Daouda Sarr kër njaayloo ak cité Mbaba Gisee bambiloor nar a jóge ci fukki village ak juróom-ñeent jàll ci fukk ak ñeent Bambilor fi mu toll nii daal day ñàkk ay mbir yu am solo jëmale ci wàllu suuf bu ñu sukkandikoo ci réew mi quotidien suñu naataangoo yi di ñu xamal ne daal ay yëngu-yëngal yu am solo ci wàllu administratif ci wàllu tolluwaayu askan wi ak ci wàllu politique moo nar a tukkee ci coppite yooyu lee Kër Massar moom na boppam am indépendance am nekk ñeent fukk ak juróom-benneelu département bu Sénégal ki ñuy yegge boobule xibaar mooy l'enquête muy xam ne ne Macky Sall dafa delloo Omar Gueye li nga xam ne moom la maître Abdoulaye wadd jëlee woon ci loxoom dafa ñëw jooyante mbir yi bu baax a baax. Macky daal ay jéego yu am solo la def bu ñu sukkandikoo ci exclusif bi bokk gis-gis ak wàllonket l'enquête yi teguwuloon ci yoon te maître Abdoulaye Wade amaloon moom la ñu jooyante fi mu toll nii ci Kër Massar Macky sàll li mu diggee woon def na ko bu ñu sukkandikoo ci le soleil li mu diggee woon juróom-ñetti weer ci gannaaw ñu des ci département bu Rufisque rawatina ca Sangalkam ak Omar Gueye ñu dénk ko collectivité territoriale muy waxtaanee signature décret d'application yi jëm ci fonction publique locale nee na lii daal ab jéego gu am solo la Omar Gueye di ko xamal waa Soleil Vox Populi jox kàddu gi ki yore kàddu présidence de la République muy Seydou Gueye muy waxtaanee dàq bi ñu dàq local yi saytu bi ñu doon saytu fichier électoral bi. ak yenn kàddu yi nga xam ne moom la kujje gi yëkkati ci mim réew Seydou Gueye ne caaxaan bi kujje gi nekkee mënul wéy benn yoon muy fàttali ni li tukkee ci saytu bi ñu doon saytu fichier électoral bi ku gi saf na si sap te kaas yam say amal du tax loolu le soppeeku ne doxalin bi mu nemmeeku ci kujje gi rawatina nag di dellu si seeni ay kàddu saa ne tax na daal Seydou Gueye nii kujje gi jaratul dara l'observateur dellu si si yëngu-yëngal yi fi amoon ci weeru mars bi génn mu dellu si ci rapport yi nga xam ne moom la délégation générale national amaloon ci mbir mi ci wàllu nguur gi Ousmane Sonko ak juróom-ñeenti téeméeri junni compte Twitter yi nga xam ne moom la ñu ubbi woon ci diir boobule. loolu yóbbee waa l'observateur ne nguuru Sénégal ci boppam daa parewul benn yoon ci mbirub Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñu wax ak waa Libération luubal jëmale ci wàllu impôt bi nga xam ne daal moom la ñu nemmeeku ci bari gold ne daal ay mbiram du yomb dara waa l'impôt di fisc bi daal fi mu toll nii dañoo bëgg a teg loxo bërëb bi nga xam ne moom la bari gold doon liggéeyee foofule ngir dénk ko gendarmerie nationale ki jiite bari gold di Marc Bristow leeral ni société bi daal ay loxom set na wecc donte Libération di fàttali ne tegoon na ci taabal bi fukki million ci kopparu dollar ngir ñu teg ci suuf mbir mi ñu waxtaane tàggat yaram door ko ak waa SAD bi ñuy waxtaanee Edouard Mendy rawatina nag jéego yi mag yi nga xam ne moo koy xaar dafa war a fexe ba raw kii di max res ci ballon door bu l'Afrique fexe it ba wane ni moom moo ak ci gardien de but yi ci kanamu Ederson leneen loo xam ne yit war na Edouard Mendy mooy fexe ba dugg ci taarix naka naka Brice Krobalaar amee woon Edouard war na yit fekk ji saajo maane bi nga xam ne mooy benn gaynde bi nga xam ne moo gagné ci C1 bi ñu jàll ci waa record di ñu waxtaanee Ligue 1 sénégalaise rawatina juróom-ñetteelu ak fukkeelu bés yi nga xam ne moom la ñu nar a amal te amal lu ñu ko ci app wi équipe yi nga xam ne dañ doon joué ci wàllu l'Afrique daanu nañu bu baax a baax Pikine nag moom moo jiitu ñoo tere nelaw waa Jaraaf ci jamono joo xam ne nag Tëngéej FC am na lajj ci kanamu Dakar Sacré-Cœur ñu jeexale koog waa sunu lomb waxtaanee ñetti combat yi nga xam ne moom la Balla Gaye 2 ak Gaston Meng ñu dellu si baax a baax ci jeexital yu baax yi ak it la ko ñu jox ci kàddu di Max Mbargane li mu tiital Balla Gaye 2 mooy mu am ci gaañu gaañu ab du baaxum nii dina tax mu gën a àgg ci làmb ji zàlloo nag ne yile combat dina tax ba Balla Gaye 2 mën a entraîné wu na mu waree lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu ndool ñu yendoog jàmm Bonjour. Le redécoupage de la région de Dakar, c'est le sujet qui intéresse la presse du jour. Nous démarrons par Sud Quotidien qui titre sur Redécoupage administratif en mode fast track. Macky redessine la carte de Dakar. Le quotidien du groupe Sud Communication souligne que le président Macky Sall est déterminé. Pour cause, il va procéder en mode fast track à un redécoupage de certaines circonscriptions de la région. Les autorités administratives et politiques premiers concernés par ce découpage auraient reçu des notes d'information ad hoc alors que les conseillers municipaux des localités concernées sont en procédure d'urgence à partir de ce vendredi 7 mai, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Le confrère de l'avenue Bourguiba renseigne que le département de Rufisque va ainsi donc être profondément remodelé sur le plan administratif et foncier avec ce projet de redécoupage. et les territoires des communes de Diamniadio, Yène, Sangalkam, Bambilor, Tivaouane-Peulh, Niaga et Diakhaye Niakourab sont réaménagés. Raison suffisante pour certains acteurs d'opposer déjà un niet catégorique à la réforme, au même titre que le maire socialiste Barthélémy Diaz qui parle d'agression contre la région de Dakar. Barth ajoute que l'histoire retiendra que cette agression contre Dakar se fait avec la complicité d'une certaine opposition et dans les jours à venir, Barth déclare nous prendrons nos responsabilités. Ce sont d'âpres batailles en perspective, soutien Sud Quotidien. Tribune est d'avis que Macky sabre Dakar. Il dépêche Dakar entre Bambilor, Diakhaï et Sangalkam. Sangalkam et Diakhaï deviennent des arrondissements et Diakhaï se retrouve villages qui sont rattachés à la commune de Sangalkam. Il s'agit de Kounoun, Galap, Kër Daouda Kër Ndiaye-Lo est cité Mbaba Guissé. Bambilor se retrouve ainsi avec 14 villages au lieu de dix 19. Bambilor perd ainsi ses greniers fonciers précise Rewmi Quotidien Diakhaay est rattaché à Keur Massar et Diamniadio devient arrondissement le confrère annonce des remous des bouleversements administratifs sociaux et surtout politiques sont attendus entre recomposition administrative et positionnement politique tout est attendu dans les prochains jours à venir dans le département de Rufisque. Kermassar obtient son indépendance et devient le 46e département du Sénégal, informe l'enquête qui renseigne par ailleurs que le président Macky Sall rend à Omar Gueye ce que Maître Abdoulaye Wade lui avait pris. Le confrère soutient que le futur découpage corrige des déséquilibres jusqu'ici abyssaux. Macky pose ainsi de gros actes relatifs à l'aménagement du territoire, intime conviction de l'exclusif qui partage l'avis de l'enquête et affirme que les injustices wadiennes sont ainsi réparées avec Keur Massar qui devient le 46e département du Sénégal. Macky tient parole selon Le Soleil qui passe à la loupe les contours et détails d'une réforme qui corrige des incohérences territoriales nées il y a dix ans de préoccupations politiciennes. Macky Sall tient sa parole qu'il avait donnée il Restons dans le département de Rufisque, notamment à Sangalkam, avec Omar Gueye. Par ailleurs, ministre des collectivités territoriales, il se prononce sur la signature des décrets d'application de la fonction publique locale. C'est une avancée extraordinaire avance-t-il dans les colonnes du Soleil. Vox Populi donne la parole au porte-parole de la présidence Seydou gué Il aborde le report des locales, l'audit du fichier, les sorties de l'opposition et le redécoupage de la région de Dakar et revient sur la décision de la Cour de la CEDEAO. Seydou Gueye sert des explications musclé. Selon lui, le cirque de l'opposition ne peut prospérer. Il rappelle que les conclusions de l'audit du fichier électoral engagent cette opposition, quelle que soit par ailleurs ses vociférations. Pour conclure, Seydou Gueye confie à Vox Populi qu'au regard de ses différentes postures serpentines, cette opposition s'est crédité. Reparlons des émeutes de mars dernier avec l'Observateur qui passe au peigne fin les deux rapports de la délégation générale au renseignement national, rapport relatif à l'état Sonko et les 9000 comptes Twitter, ce qui pousse le confrère à écrire que l'État du Sénégal ne lâche pas l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Le site Africa Intelligence, visité par l'Observateur, révèle des informations inédites sur l'enquête sur les émeutes menées par la délégation générale au renseignement national. Banditisme fiscal sur 122 milliards 60 millions de francs CFA au Sénégal, ça se corse pour Barrick Gold. Selon Libération, le fisc veut saisir la mine et la placer sous la garde de la gendarmerie nationale. Marc Bristow jure que sa société est clean après avoir discrètement proposé de transiger à hauteur de 10 millions de dollars. En sport, Sat le quotidien du sport nous parle des quatre grands défis d'Edouard Mendy. Il doit dribbler Mahrez pour le Ballon d'Or africain, s'imposer comme meilleur portier devant Ederson et entrer dans l'histoire comme Brice Kroblar. Edouard Mendy doit également rejoindre Sadio Mané, ce lion vainqueur de la C1. Record nous parle de la Ligue 1, notamment des huitième et dixième journées en retard. Les Africains chutent Pikine au pouvoir. les banlieusards en benn noire du Jaraaf alors que TFC perd le fauteuil en pliant face à Dakar Sacré-Cœur. Terminons par sunu lomb trois combats parfaits avec Gaston Meng le confrère revient sur les avantages et risques pris par Balla Gaye 2. Pour Mars Margan, il y a les risques d'une blessure, alors que Abdou Bahoum soutient qu'il sera compétitif. Pour Zalo, cela lui permettra de bien s'entraîner. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.